ay ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader di People di nuyu kilifa diine kilifa day di ñaanal réew mi Sénégal yàlla na fi sunu borom dolli jàmm tey nag ma dalal sama consultant sama frère koo xam ni kenn dootul wax sama diggante man ak moom ah, Ablaye Mbaye Chéri Diarra Laye ni ma koy waxee à chaque fois rek kër gi nag moom mënu ma fee ñëw ba génn te du ma nuyu ah, surtout naa li maam boobu Alsaan ak maa ngi lay nuyu Alsaan ak Séni maa ngi lay nuyu Laay Pawlish Ablaye Mbaye maa ngi lay nuyu. ma utiliser rek heure bi nga ñëw minuit <laughs> keneen ku la ko wooloo keneen ku xew yi doo dem këram minuit nga ñëw fi une heure nga fi ñëw émission moo tax xew loo ko jëndee jënd na ko heure mooy da ngay ji moo tax xew daal xew ne am na ay waykat yoo xam ne bu la woon da nga naan ne si bu soo waay yow taxaw ma ñëw de yow jaaraa ñu boole ma jaara may wax wala <laughs> may wax jaaraa ñu boole ma jaara may wax wala may wax bu la jànkat woo léegi jànkat bu la jànkat woo léegi doo dem moo tax xew nga bu la jànkat woo doo dem waaye xew nga ne yar nañ ci yàlla suuf yar nañ yàlla suuf ñu gën a xew maa ngi nuyu Sénégal yëpp ah mm-hmm. di nuyu ñi may seetaan nag mm-hmm. di nuyu sénégalais yi ah, di nuyu ñi may normal. Mhm. Ah, di la guy gi. Mhm. di nuyu Sénégal am na xam naa ne kenn bañu ma de waaw man moom ñi ma bañ bariwul de est que am na ñoo bañ kenn bañu ma. Mhm. di nuyu sénégalais yëpp nag di nuyu Sénégal am jàmm di nuyu sama yaay Aïda Mbaye sama maam bi di sama soxna Diarra di nuyu. njabootu Baye Laye Seydi yëpp di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yëpp li ma bëgg a laajte laaj ma ko ma tontu la ci lépp parce que il fait nuit ku ne ñibbi. <laughs> ayca am na solo mais man maa ñëw eh, mais sama copain gën sama copain faaw ma nuyu ko tamit. xam tamit mënuma ko bañ a nuyu. ci kër gi loolu loolu sàcc <laughs> am na solo Pawlish. mu euh, euh, bëgg ñu waxtaan tuuti ci ay jikko. Mm-hmm. Pawlish léegi kenn wóolatul kenn. Mm-hmm. Pawlish dëkk bi léegi ñëpp ragal nañ wooy audio nit sax léegi wóoratul nit da lay sax nga woo ko. ñu bañ a audio seen làmmiñ nit day téye làmmiñam nga bañ a audio rek la téye say làmmiñ audio na nga audio sa yaay wala audio wala nga audio ki audio képp ku wala nga audio ku génn àddina du la tontu du yónni say message bu mu mu mu traversé ko. moo traversé ko bàyyi leen dund da ngeen audio ku dee. ndax parce que Sénégal fa la toll nag. ma dimbali nit ñi Sénégal foofu la toll audio ko génn àddina Sénégal fa la toll. audio ko nga leer ni dee na ba tuur ko am ba am juróom-ñeenti fan nga soog nag moom. du la du du ko du ko joxe du ko ko sànni message du ko envoyé kenn moom rek moom rek koy dégg moom moom képp du sànni say message Sénégal fa la toll audio ko génn àddina la fa la toll. Mm-hmm. koo audio kuy dox am bakkat am ne am nopp am zorey billaahi wallahi bu subaa da ci jot kenn amatul ci man sax téléphone dama ko bàyyi yor ci àddina saa boo ko audio mu envoyé ko audio sa maam mu envoyé ko sa papa mu gën koo envoyé audio nit ku génn àddina parce que loolu solution bi. parce que léegi dëkk bi toll foofu la toll. xam nga dëkk foofu la toll dëkk ba dee ba kenn wóorootul kenn ci àddina kon nit na lay waxtaan ak nit ak nit ki sax ngay waxtaan nga foog ne bëti bëti caméra noppi day day day day arrêté bëti day loxo yi day arrêté àdduna moo toll foofu ki képp kuy audio audio audio ku génn àddina parce que fa la fa la fa la dëkk bi toll amatoo audio nit normal ku kuy dox yore noppam yore otom amatoo fit audio dëkk bi moo toll foofu na nit ñi intelligent dëkk bi moo toll foofu léegi ki man audio mënoon naa am naa ay audio yu seen na parce que nit kese laa parce que mënoo nekk ci dëkk bi da doo audio mu nekk ci dëkk bi doo wax am naa samay audio yu tas am na yu tasul am na yu ñàkk tas am na ku ma hmm. audio léegi man fi ma toll fa laay toll ki génn àddina ko ko loo ko ko laajal ko ko li jàpp ñaambal tu tontu ko avaye kenn fa la dëkk ko wala bu ko avaye avaye ko ñi mu tëddal lan nga tax lan nga yaakaar moo tax ah. dem ba jamono toll foofu kenn wóolootul kenn ci àddina képp kuy wóolu wóol wóolul képp ku génn àddina wóolu ko jox ko dénk sa bopp dénk ko si lépp soo ko audio la métti ñëpp billahi du ko avayé ñi nekk ci àddina di dox di nooy di ko avayé ñi ñi mu tëdd la koy avayé ñoom ñu dégg ko jàpp ñaam duñ ko avayé kenn képp kenn képp ku ko envoyé kii ñi ñi tëdd lañ ko envoyé mais koo ko envoyé kuy nooy yore bakkanam di dox almadi yoof ci leen Kër masaar Pikine jàmm gën Europe Espagne foo ko envoyé dina seen nga envoyé képp ku génn àddina envoyé ta vocal li la métti yëpp envoyé ko mu dégg ko a xel mu dal envoyé ko ñeneen ñi mu tëddal nga xam lu ko envoyé kenn mhm. fa dëkk bi toll léegi. Mhm. parce que léegi dama gis benn Sénégal boo xam ni Pawlish eh, bu njëkkaan ba daan xuloo Pawlish Mbaye mais dañ daan xeex sax man ak moom. Mm. mais léegi dañu gis ni damay xuloo ak yow. mais li may njëkk a def mooy damay dem xool sa askan xool sa famille. jël say vidéo xool lu bon ci yow ma koy génnee bu ñu ba Sénégal tollu foofu. dafa ñaaw kuy gi. guy mm. gi li gi xanaa xamoo yaay tëdd gu yaay képp ku nekk ci internet sa yaay nelaw du ci jàmm. sa papa tu ci jàmm say mag yi nga bokkal ndey ak baay kenn yabu leen kenn musu leen a yab kenn déggul ci ñoom ñu ñaaw kenn déggul ci ñoom ñu weer ci seen sutura wax ci ñoom lu bon ak ama nga ak sa yaay am nga àq say mag am nga àq say say mbokk am nga àq ñi nga dëkkal am nga mbàq say famille parce que famille pour ñu yàpp ko léegi day gaaw parce que di nga gis nit ku génne audio nit ku wax ci nit lu bon ñu taf sa yaay taf sa papa di di ci wax lool lool te sa yaay yëgul tinu sa papa yëgul tinu lu ko gën a ñaaw ci àddina ndax xale xam ne TikTok TikTok pour kaf la woon TikTok pour jàmm la woon. Hmm. kaf ci kaf bu ñu demee ba kaf am jàmm lañ tax a jóg kaf kaf la TikTok bu nekkoon xuloo tubaab bi du ko ubbi tubaab bi gën a intelligent hmm. tubaab yi gën a xam caat ne tubaab yi dem nañ ñun ba bàyyi ñoo TikTok bi léegi. Hmm. xam nañ TikTok léegi ñun xam nu ko xamee yàqante wax ci lu bon TikTok du loolu TikTok kaf la woon ak reetaan jël sonw nit kaf ko reetaan fecc ko jël waxu nit kaf ko reetaan léegi ñu danoo jël waxi nit teg ko fële kafe nit teg ko di yàqante di waxante ci yaay ci ñaaw sa papa lu ñaaw des fois nit génn àddina nga téye nit ki génn àddina di ko wax lu ñaaw loolu lu ko gën a métti kii koy saaga deful dara de yow mi yow mii doom yow yaa ko teg lii mu teg lii mu méritowul lii parce que man dama gis léegi senegal boo xam ne nii man du ma xooloo Pawlish ay vidéo am laay dem jëli wala ma dem fay benn benn idi mu koy saaga di ko wax lu bon. di ko wax lu ñaaw est-ce que jotul nit ñi ragal tamit. déedéet danoo xamul ne day am na danoo xamul ne lépp day jeex te dañuy jëm mag ñun ñëpp. Mhm. lii yëpp day jeex. suñu doom après ñooy ànd bu dee dinañ am doom lii day jeex tàkk. Mhm. sa yaay yëgul tinut. Mhm. sa papa yëgul tiin mu jur la fi mu la war a juree yow mii tekki woo dara ci kër gi xamoo dara ci kër gi. Mhm. ubbi sa compte TikTok def sa place soixante mille yéen sa live jënd crédit cinq mille sa yaay liggéey ci yow un million liggéey ci ay milliards ëmb la juróom-ñeenti weer benn bis nar koo rey sa papa sa ngénte xaw fu mu jëlee xar. xaw fu mu jëlee nag ay baax ceeb dagg-dagg ci yow nga nar koo yàq. Hmm. ñu taf koo taf taf fayoo sa yaay fayoo sa papa. parce que soo maandoo réglé duñ taf sa yaay duñ taf sa papa réglé xam ni àddina du tey. la àdduna jeexagul nit ñi jeex àdduna tukkeegul di nit ñi tukki. Hmm. ku dee tukki na. d'accord d'accord nit ñi nañu xam ne TikTok du pour saaga. Hmm. TikTok du wax ju ñaaw. d'accord ci foofu noonu laay ñëwee fan yi ñu gis benn coow loo xam daanaka euh, la ko jur TikTok la muy coowal ñoom Mamy Cobra Pendo Aji Maas Soko Adamu tey bu ñu bu ma wax sax góor ñi mais bu ñu ba ay jigéen bu njëkkoon jigéen kenn daaw ko dégg ci ay wax kenn daaw ko dégg ci ay détails mais léegi euh, jigéen ñi daanaka sax da nga naan ñooy weerante ci seen biir. waaw li ma ñi ma jox toor mu jigéen ñi laay jox toor. Mm-hmm. toor bi mooy lan. jigéen pour ñu xam ne jigéen la day wormaal boppam suturaal boppam ñoom ñi ñëpp benn lobby la ay mag rakk la mun dee ba jigéen nekk ci tu di saaga di wane boppam di saaga jigéen fan la amati ci àddina mm-hmm. xalaat nañ suba am jëkkër xalaat nañ suba am ay doom xanaa ne suba am ay mbokk bu dee ba taxaw ku ne ubbi sa làmmiñ di saaga di wax co di saaga ci jigéen jigéen bu dee bu fëgg dënnam di saaga kooku est-ce que jigéen la léegi. sa nga tiim sa yaay nii di saaga saaga ndey sa papa toog ngay saaga ndey say mag yi nga bokkoon ndey bay toog saaga ndey nga tiim ubbi sa live di saaga ndey est-ce que ay jigéen lañ. Mhm. nanu yërëmante seen bopp suturaal seen bopp. yërëm ni lii du wëy suba dana war am jëkkër am njaboot tey li gën a métti tey sa yaay nga taal gi sa yaay di saaga di laay ñu taf sa yaay yaay di ko saaga lan moo gën a métti yow sa yaay gi am naqar du ko mën a du ko mën a jibile du ko mën a wone ay mbokkam ay wujjam ay wujju perte kogoom ay mbokk jëkkëram xaw ma bañ nañ ko war a bañ ñu ko ñu taf ko di ko saaga nga foog ni yow nga vanté wu di saagawaat nga xam ne yow nga foog ne da ngay défendre sa yaay yaa ngi yàqal sa yaay sa yaay xol baa ngi métti xol baa ngi mënu ci def te yaay dafa bëgg njaboot yaay dafa bëgg doom tey ñu taf sa yaay lu ko gën a mel ñu taf sa yaay yow nga taxaw nga xam ne sa yaay jii lañ taf ngay ñëw di saagante ki taf sa yaay de wax sa nga koy tontu déedéet tontu woo kii saaga sa yaay ngay saaga sa ngay tontu. Mhm. li gën a métti tey sa yaay am njaboot am famille am ay nawle am wujj wujjam mun na ko bañ a bëgg famille mun nañ koo bañ a bëgg famille jëkkër mun nañ koo bañ a bëgg ay mbokk mun nañ ko bañ a bëgg ay mbokk mun nañ ko looy duggee ci sëy bii looy loolu tax nga kii dinañ am dinañ am dinañ am ndam dinañ ree reetaan sa yaay te gàcce yaay gën a ci àddina gàcce yaay du munoo ko jox alal munoo ko jox kër munoo ko jox oto à vie la koy topp parce que heure bu tàppee boppam di gis boppam dama ba nga tàppe sa yaay gis ko mu nekk bayti laay di siyaare Seydina Muhammad waaye nga tàppe sa yaay gis ko ñu koy wax ci lu bon di ko lu li ko wax lu ñaaw na jigéen ñi reculer. xam ni lii lii du woy lii jëmu kër internet kese la ni teg yor ay milliards toog këram deful live deful dara di jaay jaayam kenn déggu leen tant que ñoom live ñu fëgg seen dënn takk seeni përëm yooyu wala takk seeni palaake yooyu foog na ñoo am amuñu am na ñoo xam ne ñu ngi ay milliards toog xolo jooju mi li ko li mu yor xale bu ndaw la. joojoo gi nii mi ngi yor ay employé di jaay déggoo ko mu wax lu bon déggoo ko mu live gisoo ko mu génn te seeni naw ñoom ñëpp li jaay ñoom jaay ñu ko de li muy ubbi ñoom ubbi wuñu ko de te moom bu neexoon fëgg dëndam xam ni moom moom la mais deful loolu mu ngi jàpp ñàmbaram na xale yi xool na xale yi roy bu mënu roy ci jooja nan roy seen yaay yi seen yaay yi dégg ñu ne loxo leen ñooy tooñ seen yaay yi ñooy saagal seen yaay yi ñooy toroxal seen yaay yi des fois yaay ji lu ñu naan dafa malaise daa jabet ak naqaru xol tey ñoom ñoo ray seen yaay yi na jigéen ñi xool na jigéen ñi toogaat xool ñu ñëpp laax na jigéen ñi toog xoolaat ne lii du way lii jëmu kër li ñu nekkee nii du ndam li ñu ni ñu nekkee nii du sutura ni alal bi bi sax du baaxul alal boo xam ne da la ci saaga di wax lu bon sa yaay di ko dégg xolam du naqari sa yaay di ko dégg nga koy neexal neexaloo sa yaay yaa ngi toroxoo sa yaay li gën a mel sa yaay taf sa papa di wax ci yow lu bon di wax lu ñaa nga taxaw di fëgg sa dënn di saagante déedéet ay jigéen lañ góor góor a war a saaga jigéen danoo war a toog rek la jàpp seen ñaamun li su doom day am sëy day am jëkkër day am lu leen day am ñu toog rek la téye seen lamine nekk ci internet bi di fëgg di uppi sa dënn koy takk sa lam naan maay lamu dof bi te amuñu lamu dof amuñu xoolee xam ne ay jigéen lañ nan toog jéem a xool seen vie jaay seen jaay li jëndi seen sëy nuñ amee doom nuñ mën sëyee parce que internet du wéy lii day jeex tàkk mhm. barki sara lii day jeex lii du wéy day jeex tàkk te ñoom ñëpp ay mag lañ amul xale ñoom ñëpp bu ne la doom a ngi nii sikkër a ngi nii nga ne 60 doom a ngi nii bu doon béy tey jaasi nan bu yàgg wala ñu taawloo ay nake ki xara ki gayndeek mun nañ taawloo ñoom ñëpp parce que ay mag lañ ñoom ñëpp xam nañ lépp ci àddina kon noonu régler téye seen làmmiñ jéem a suivre seen liggéey bi ñuy liggéey nañu régler man ñoom ñoom laa mën a waxal parce que ay jigéen ñoom ñoo nu jur. nanu mais coow li am na ay góor. déedéet man sama yoon am naa droit conseil ay jigéen. Mhm. jigéen la am droit conseil. Mhm. Mhm. d' accord mais man dama gis ne coow li man daan naa gis coow lu coow coow lu nekk coowal showbiz daraan am coowal bataille psychologique coowal làmb sax daraan am mais dañu gis coow li dem ba dugg ci ay. fan déggoo man la coow li dina egg foo xam ne tribunal la jëm. coow lii ma dégg dina egg tribunal bu ñu ko yemul dina egg tribunal te bu demee tribunal ñoom ñëpp la ñuy jàpp billaahi wallaahi ñoom ñëpp la ñuy jàpp nanu réglé nanu réglé xam ne ay jigéen lañ man li ma leen conseillé en tant que sœur nañu réglé concentré wu seen jaay yi ñoom ñëpp a ngi jaay ñoom ñëpp gi yàlla gi leen suturaal ñoom ñëpp gi jaay nañu bàyyi yàqante bi nañu bàyyi sisete bi nañu bàyyi gorante bi nañu bàyyi nit mi ngi si ne nit te réewul nit a ngi wax ci nit loo xam ne te gëmu ko nit a ngi wax ci moom loo xam ne xamul ne fa la ko kee nañu bàyyi foo bi nañu suñ mënta bëggante nañu bàyyante ñoom ñëpp ku ne jàpp ne toog sa koyee foo yàlla fekk la fa billaahi wallaahi bu dee li ngay jaay leew na la li jaay yaa ko liggéey li jaay defoo ko ci lu li ngay jaay ci anam bu baax nga ko nekk suñu borom fekk ci la mm-hmm. jàpp ne bu ñu yàqanteeloo duñ jaay. waaw surtout. bu ñu waxanteewul lu ñaaw duñ jaay. Mm-hmm. bu ñu saganteewul du jaay ñoom war nañoo ñoom ñëpp a rafet. Mm-hmm. billaay amul kenn ku ci ñaaw. Mm-hmm. tey jot ci toog jaay xool jaay normal billaay ni ñi ñoom du la foog li ñu fëgg seen dënn nga foog nit ñi leen bëgg. nit ñaa ngi leen jay des fois benn nit yore 60 compte di commentaire très bien très bien nga foog ni ñoom 60 personnes lay commenté kenn kay lay commenté. nga ngay ubbi sa dënn di fëgg nañu xam ne àdduna yamul benn àdduna yamul tey. te tamit dañu war a xalaat seen njaboot ëllëg. ah dañoo war a xalaat seen njaboot suba. Mm-hmm. dañoo war a am ay njaboot te ñoom ñëpp ay mag lañ. amul benn amul ku ci juddu 85 ñoom ñëpp ay mag lañ ku ne jëkkër a ngi nii billaahi nga jur 60 nag wala 60 xar parce que ñoom ñëpp mën nañoo am doom xam nañ fi ñuy amee doom a am doom kon xam ne seen wàll léem wooy xale yaay di ci te ñu ay mag lañ. nañ concentré seen jaay yi ñu liggéey mën ngaa jaay mënuñu ko parce jàpp nañ ni tant xuloo yooyu duñ jaay te loolu du jaay nit ñi da nit ñi danoon dem ba jéppi leen. Mhm. danoon dem ba jéppi ñi leen doon dimbali danoon dem ba jéppi parce que lii lii nekkul Sénégal waaye. Mhm. dem bay waxante ci sa yaay te viilu ñaaw ci say jàmbur dugg ci viilu jàmbur. Mhm. dañuy xoolaat li ñuy def. d' accord ah, am na solo am na solo mais euh, euh, mën nga naan dara parce que. wax métti na waaw waaw waaw tey nag. mais mais mais mais mais nga di tax bi. ah <laughs> dama lay wax nag li nga ñàkk son nag. moo tax nag mooy la tey naanal di tax. <laughs> kii nu mu tudd. <laughs> gis naa ko Aida. Aida ni Aja Aida. Aja Aida ngi nii. Aja Aida ngi nii. Ah. looy gën di ñàkk di gën di naan di gën di fex Aja Aida ngi nii maam la ko tuddee li tax si neex. xam nga ni da ngay dàqante rek sa maam. bu hmm? tuddoo ko Adja Aida. ma <laughs> moo wër Adja Aida. Hmm? Adja Aida ji bi day dindi cholestérol diabète fibrom loo xalaat ji bi da koy dindi ABC DE FGN UG e, KN koy naan Adja Aida waaw waaw naan da may naan Adja Aida. <laughs> d' nañ pose Adja Aida ñëwaat tuuti parce que dëkk bi yëngu na <laughs> mais tey tamit <coughs> man da que man Pawlish fan yee oh, gis naa ko fi mu génn mu génn te mayu ma ko xaaj ko ko lekk te mayu ma ko ku lekk sama xaaj te mayu ma ko mais na wax loo xam ne kenn wax loolu ko kenn yónniwu la wax wax yoo xam ne kenn yónniwu la non moo gën a metti kenn yónniwu la la ko moo gën a metti man kenn yónniwu ma damay wax nii rek mais metti na lu xaw ma lu may lu may service suba mais metti na loolu waaye sama xaaj koo lekk te mayu ma la ko d'accord mais Pawlish fan yee dañ fi gisoon benn vidéo boo xam ne. Pawlish a ngi génn di défendre son excellence président Macky Sall euh, tey nag bu ñu xëyaatee euh, président tamit changé waat gouvernement bi ñu gisaat leneen c'est normal tamit ñu ñëw waxtaanaat ak yow naka nga gisee loolu parce que gis nañ ni Amadou Ba dem na keneen ak keneen dem na. yóbbu ngeen kuy nekk président suba. Hmm. waaw damay wax sénégalais yi nag. man duma ma gaaw wax su ma waxee rek damaa gis. yóbbu nañ ki nekk président suba ku teey ku am yërmande. ku dal ku nangoo muñ ku gore ku bëgg Sénégal ku yërëm ñi muy àndal. Mm-hmm. ki yërëm ñi mu bokkal ki yërëm Sénégal ku fonk Sénégal moom laa gis ci ci nguuru Macky sàll bi. muy Amadou Ba fiti président da nga ko war a wax parce que day nekk président parce que jikkoy président la yor mm-hmm. Amadou mi ngi mel ne ngeen ni me nakk ci nakk ci géew lu ñëw ci yow lay dal nga xam ne mi ngi dal ci yow muñ nga xam ni li lay teg métti yuuxuwoo rafoo tiitoo nga gore lool ànd ak kenn nga gëm muy président Macky Sall nga gëm Macky Sall bëgg Macky Sall bëggoo kenn caat na ku doon Macky Sall loolu respect mënut a weesu loolu. Mm-hmm. toppee ko alal. du succès du ndam bëgg bëgg Macky sàll fu ko Macky Sall yóbbu la ko fay yóbbu te nag fi ko Macky Sall yóbbu xam na ni mooy sunu président Amadou Ba mooy président Sénégal. liñ ko teg képp ku ko tegoon tey nga bàyyi état nga bàyyi nguur nga bàyyi politique. Mhm. ñuy wax ci lu ñaaw nga koy muñ. te ñu ngi koy wax nga xam ko nga ñu dégg ko nga xam ñu la koy wax doo onk doo yuuxu doo raf doo tiit président mënut a dépassé loolu te moom mooy président Sénégal. Hmm. muy président Amadou Ba. d' accord mais tey tey tey génne bi ñu ko génnee. génne bi ñu ko génne moo ko defaral parce que nag président dëgg dëgg Amadou Ba ji koy président la yor. Amadou Ba jikkoy président la yor jikkoy président day dal président day teey président foo ko fekk day sourire Amadou Ba da nga koy gis foog ni billaahi wallaahi du ministre du maire du député ndax yaroom musuma gis Amadou Ba takk drapeau Sénégal fii woon ni moom ko si ñu si président la wala si ñu loo ko gis tey jàpp jàpp ñaam sol ko si ñam rek la dal président nii lay mel en plus nga ñu koy wax lu bon di ko def lu bon ci ñi muy liggéeyal ci ñi muy nekkal mu xam ne ñi ngi koy teg lu bon ñu ngi koy wax lu bon mu nang ko ang nangul li ñu koy teg lépp waral kenn ko waral muy bëgg président Macky Sall moo xam ni nag Macky Sall ay président mu topp ci ginnaawam raful oful kenn nga xam ne moom moo war a nekk président Sénégal muy Amadou Amadou. dem bi mu dem jàpp ni mën na. dem bi mu dem moo ko defaral fii mu nekk. dem bi mu dem billaahi wallaahi mooy nekk président Sénégal barke Seydouna Muhammad bu ko nekkul ma xàcc ci yoonu Serigne Babacar Amadou mooy nekk président Sénégal 2024 bi Amadou Ba mooy nekk président Sénégal billaahi walla parce que nduru na président yor dox yu président. <laughs> Amadou waay. Amadou Ba yow nga nekk président Sénégal waaye Amadou Ba waaye eh, Amadou Ba ñu lay def lu métti muñ ñu lay lu la ñu la wax nga muñ nga eh, eh, nekk président Sénégal waaye Amadou waaye Amadou yaa sonn Amadou Ba yaa ngi président Sénégal yaa góode te mën a muñ ñu la leen ñu la koy tekkee muñ ay Amadou yaa ngi président Sénégal.